allez voter massivement euh, loolu lu am solo la allo. allo oui. oui Akhenaton ñu ngi lay nuyu. Akhenaton lu bare bare. di la delloo ziar di bëgg ci yow di bëgg ci sa auditeurs yëpp rek. waaw li liggéey am na solo. voilà. Euh, may wax rek. ci bañ a guddal. Mhm. waaw ñu bàyyi la donc nga voilà nga nga exprimer waaw di wax ne xaalis boobu ñuy wax mu di ko def ci média yi. dafa déclaré ne moom 3 milliards la def ci campagne Déclarer wu ko sax mais bi ñu defee rapprochement yi ak les 500 presque 5 550 communes il faut fa dugal ci ay millions comité électoraux yi bokku la trésor de guerre bi muy liggéeyee. dafa am benn plan plan de communication à l'international bu mu déployé sans que yaay ait ni ñu koy wax au niveau donc du journal l'essentiel def na ko ci journal Jeune Afrique mi koy def ci journaux yi nga xam en Europe aux États-Unis sañu pourquoi parce que y a une plainte il y a une plainte sur le dos de Macky au niveau des États-Unis ah oui une plainte bu koy xaar Oui. loolu commune Ousmane Sonko ko boros na ci waxam mais nit ñi capté wuñu Ousmane Sonko a été entendu par l'ambassade des États-Unis. Il y a une plainte au sujet du gaz et du pétrole. Certaines compagnies américaines qui ont été donc dirigées par Macky Ah oui. Donc campagne ay milliards la ci def li mu def ci 20 war milliards parce que bëggul ñàkk nguur gi bu ñàkkee nguur y a une plainte sur la tête de Macky Sall et son équipe qui l'attend aux États-Unis la preuve lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies Macky Sall dafa absent Sénégal musta absent c'est la première fois Macky Sall demul bi ñu le second volet du MCA le Millennium Challenge Accord bi ñu le deuxième volet de financement

ci du tender Total tout dernièrement avant mu koy Total ak BP ministre des affaires étrangères Ndiaye Russie de pétrole c'est sûr que on a du pétrole sur ces euh, euh, sur ces licences là dañu bëgg ak du gaz bëggoon ngeen ñëw xool ba xam si ça vous intéresse dugal leen ci concessionnaire Poutine était très intéressé nous nous commencé à ak état du Sénégal pour faire ni négocier pour un petit part de marché pourquoi parce que pour nous faire ne Europe nous faisons du ci gaz en en majorité c'est le gaz russe Le gaz bob, russe il un côté comme arme li may wax géopolitique il ko comme arme contre l'Europe moo Poutine dafa am doole ci Europe beaucoup bokkuñu politique mais politiques, il un ci gaz du parce que

donc bi leen ci tànk tànk ngeen loolu bokk na ci li mu daanu ñu wàcc bi bi bi dugg ci gaz bi ndeka Macky bi mu defee loolu daf doon dugal Russie ci biir gaz bi pour monter les enchères au niveau de Total et de BP pour mën a yokk prix yi mu leen koy jaayee. bi Total ak BP gisee ne Russie ñi ngi commencé intéressé ci gaz Sénégal bi parce que géopolitiquement et géostratégiquement bu ñu Russie duggee loolu li ñu bëggoon du am parce que Europe li ñu

actuellement moom tamit mu ngi xaar Macky Sall dafa am contentieux bu mag ak Macky Sall. yow li ngay wax nii de c'est extraordinaire. li boo gisee Macky Sall di def ay démonstration de force Sénégal fu mu dem ñu buub région ba yëpp sampal ko ko mbooloo mi bari tey am na benn wax bu wax Guédiawaye. nee na na leen na ñu fexe nag ba mbooloo mi ni mu baree ñu traduire ko ci biir indi yi nañ fexe ko nit ñi voté. xam na ne mbooloo bu bari taxul nga am ay carte yu bari xam na ko de waaye insisté na wax na wax na ko tey parce que doful mm-hmm. Macky day def campagne pour ñaari cible la am campagne am ñaari cible lay campagne day campagne pour sénégalais yi ñu sàcc élection yi mais day campagne à l'international pour que sàcc gi mu mën ko valider moo tax mu fay cinq cent mille cinq cent euros en France mu distribuer euros je te jure ni ay 60 000 euros fi ay ay milliards lay joxe Sénégal te Serigne Seck fu nekk lu bugu ñepp la corrompre parce que bu jallul ces pays lay muju avec son équipe ñepp ñëpp ma Ancar nguxam mbuuxam boobu mu def Russie moo tax ñu daaneel. donc contentieux Russie contentieux États-Unis li ma lay wax ni top leen ko Macky Sall def leen dem leen gën gistu ci ginnaaw sommet Nations Unies bu muju bi demul. volet MCA bi mu dem demul moom ak Aly Ngouille Ndiaye ay plainte yooyu ne xaar États-Unis buñ fa tek sen tank jamais. Dimalako wax. La ilaha Ina Muhammadur Rasulullah. na ko sénégalais yi xam ko dimanche na ñëpp jóg voté ji Macky Sall bu daanoo du sénégalais ñoo réglé seen compte du Idrissa Seck du du du du Ousmane Sonko du keneen bis à l'international am na ñu taxaw tey ñoo xam ne ñoom ñu ngi ne siiw mu wàcc di réglé ay compte am su boobaa yi sax duñ ko réglé am na ñeneen ay compagnie internationale yoo xam ne caay caay gañoo def banditisme bi ñu def ci suñu économie réew mi moom lañ def ci biir seen loxo setul mënuñu affaire ay baadoole lañu lu ñu dugg yàq ñi leen di xaar ci bitim réew pour pour jaamaan ak ñoom ñoo ëpp fuuf sénégalais yi na ko ñëpp xam li may tëjee mooy bu yi lii may wax ku ku ko dégg na nga teel a jóg parce que am nañu taxaw ci biti américains yi ñu ngi suñu ay yi ñu Sénégal yëpp xam les américains ñoo ñu gën a xam fi réew mi toll ñoo gën a xam fi Macky Sall jóg benn Allemagne yi ñu ngi surveiller élection yi au Sénégal mais ñom ñoom ñooy ñoni ñooñu ñu ñoo defal dara lu di ñu fépp ñun jox taxaw ñoom ñu fekk ci ñu bu ñu jógul voté massivement voté fexe ba ay 6 millions inscrits à peu près 60 70 ñu fexe ba 70 pour des 6 millions 4 millions 5 5 millions d'électeurs bu ñu ko amé yu dugg ci urne yi duggal seen enveloppe ci urne bi Macky Sall daanu na. billahi billahi kon daal kon daal. waaw càcc gi ñuy wax yëpp solution amul booy woy na mbuus suñ toll nii benn solution mo fi am benn mooy ñu fekk ñun ñep teel a voté balaa midi fexe ba 4 millions 500 5 millions de Sénégalais voté pourquoi parce que Macky Sall nap na boppam am na limu am ci ay électeurs yi weesuwul 2 millions électeurs maximum dañoo dañ ko arrondir ay chiffres yu valable depuis 2012 ba légui élection yi fi jàll yëpp dañ ko cumuler def ci ay calcul xool ay force am ay faiblesse mi ñu dugg ñëpp ñu xool ne kii doole bi mu am weesuwul 2 millions xam na ko bi mu xamee ne loolu la am motax mu jóg ne kon

dafay correspondre ak nombre d'une mu bëgg nit ñi voté ko muy 3 millions 3 millions 500. bu ñu voté 3 millions 500 2 millions yi day nekk Moussa day gagné premier tout. donc Sénégalais yi xam de. c'est ça c'est ça. donc tout de parti. Mhm. Mhm. donc le message moom mooy comme lu Akhenaton wax gars yi farlu leen ba avant midi mbir mi na farenkulaayu teel leen génn c'est i kër dem ci bureau de vote yi voté ba maanaam midi ñu xam ne euh, euh, euh, taux de participation bi rajo yeeg télé yi nit ñëpp gis ne taux de participation bi c'est vraiment élevé. dafa am solo xam nga lu tax gis nga élection parti au pouvoir xam nga fan lay adapté élection yi mooy taux de participation bu njëkk bi midi lay génn média yee koy joxe bi ci topp 17 heures lay génn gis nga midi bu taux de participation bi génnee daañu xam fa élection bi jëm 17 heures bu taux de participation bi génnee pouvoir bi dina xam ndax ñàkk na wala gañe na te bu taw wàññeekuñu kon Sénégalais yi dañ teel a jóg voté benn vague bi 50 pour cent yi dañ ko voté avant midi 25 pour cent yi maximum yi des dañ ko voté avant 17 heures muy 75 pour cent ci 6 millions d' électeurs su fekkee carte yëpp génn na 95 pour cent yi Aliou Ngouille Ndiaye di wax c' est pas vrai carte yi ni ñu ko distribué matul 60 pour cent parce que ñoom li ñu génn ci ay carte

te ci biir 2 millions yooyu jeunes ñoo ci bari donc li ñu distribué ci cash yëpp Aly Ngouille Ndiaye li muy wax yëpp jëlal 4 millions yi te def na rapport 4 millions sur 6 millions 600 ci wàllu pourcentage de carte fabriquée laa wax. te pourcentage de carte fabriquée boobu distribué wuñ lépp am na loo xam ne téye nañ ko am na loo xam ne amul am na ay am na yoo xam ne léegi ci lieu de retrait yi jot kenn jotatu ci ba léegi kon nañu jàpp ne jour te nañu yor seen carte

sànq nee na ba mu commencé yéen du du tey. c' mu commencé sànq. benn moyen mooy ñëpp jóg dégg wax ji tas ko ñëpp dem vote ji teel a vote ji boobu mu arme lañ ci des la ku fi nekk di nelaw naan damay xaar ba añ ba noppi damay naan attaaya damay sieste wala nga dem ci sa bureau de vote ñoo la du fii. fayal la nga am ax taay naa dama damay dem ñibbi man dama ci sonn ku ko ci def da nga ko ndax nag bu jàllee. ak compagnie pétrolière yeeg gaz yi dañ koy def benn prince héritier comme Ali Bongo comme Congo comme feneen ak feneen France ak Angleterre ñoo xam BP Total ku falootu Sénégal ñoo lay fal bu ñu xasee ba farenku laaye ba jall ba Macky jall ku fay falootu ñoo lay fal ndax xaalis ba fay genn pétrole bi gaz bi ku fa ku ñu bëgg lañuy fal kenn du fa fal te neexu leen loolu mooy lobby yi ñuy wax Sénégal yi dañ ko xam jàllale ko ci village def ay audio wax ko nit ñi mag ñi suñu papa yi suñu yaay ñu xam ko suñu avril dool bi moo tax ñuy sonn mais mag ñi kenn waxatul seen i wax cas maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar lu bari man aussi maa baax a baax a baax a baax euh, Akhenaton xam naa dinañ gën a jokkoo ndax li nga wax am na solo incha allah merci beaucoup Akhenaton nuyu ma mbokk yëpp ñoo ngi ziar ñëpp di ñëpp di la di wax ñëpp ba dimanche incha allah jërëjëf Mati merci beaucoup